jaa ngeen jëfati mbokk yi way ànd ak ñun di ñu déglu ko seetaan di ñu bàyyi xel ci www.biorahma.com muy site internet boo xam ni day waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu bio lu naturel ñu fas yéene indi seen bio énergie moom ngeen gis ni bio ulcère ñu amit yeneen xeetu produit yoo xam ni daanaka lépp dafay jëm ci lu naturel lu bio kon yow mi déglu ko seetaan lépp loo ca soxla lu ne ci la ngay gis te la ngay seen te la ngay seen ca la ngay séntu ca la ngay gis mën nga daal di koy ànd ak ñun rek ci 3w point biorahma point com muy site internet goo xam ni dafay waxtaane di wàllu bio lu naturel kon yow mi déglu ko seetaan ak foo mën a nekk ci réew mi ak ci bitim réew lépp loo ci soxla ci la ngay gis mën nga daal di woote ci whatsapp bi 77 244 98 05 su dee ci réew mi fii ci Sénégal dañuy def ay livraison à domicile nee naa leen yëf yi am na Touba en face rouge foofee soo fa wootee rek numéro bi 77 244 98 05 dinañ la jox numéro Touba bi su dee Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ci ngent soo wootee dinañ la jox numéro téléphone bi ni ngay def ba jot ci su dee tamit Saint-Louis soo dinañ la wax nan ngay def ba jot si su dee Touba tamit wala Njaareem dinañ la wax nan ngay def ba jot si su dee ci yeneen région yi ñoo ngi seet yoon wi ñuy jaar ba nga jot ko su dee yow mi dëkk Kaolack wala yow mi dëkk Tamba Kolda wala yow mi dëkk Ziguinchor soo wootee ci whatsapp bi 05 dinañ ko daal di def ci horaire yi horaire yi indil la ko nga dem jël ko sa gaar garage bi nekk foofu su yow mi dëkk Tamba mën nga woote soo wootee fay ñu waxtaan ñu daal di ko dugal ci oto yi jóge Tamba oto yi dem Tamba ñu daal di ko ci dugal yow mi dëkk Fouta ak yow mi dëkk Kolda ak foo mën a dëkk ci réew mi soo wootee rek dinañ wut pexe woo xam ni dinañ ko dinañu def tout pour nga jàll jot ko yow mi nekk bitim réew moo xam Italie yow mi nekk France wala yow mi nekk Espagne ak yeneen dëkk rek ñoo ngi koy jaarale ci GP yi su boobaa soo defee sa livraison rek soo defee li nga bëgg ñu daal di la waxtaan ak ak GP boole ak moom jox ko ko mu indi la ko kon képp fu waay nekk rek te war naa mën a jariñoo suñu produit produit yi gis ngeen ko lii ngeen gis yëpp produit biorax ma la Biorahma moo ko defar loo ca soxla lu ne rek incha allah soo ànd ak ñun pommade bi ngeen gis pommade la pour wàllu eczéma ak ay psoriasis yi petit la am na bioénergie boo xam dafa ànd ak ñamako ak màkka am na sio am na poudre am